dal leen ak jàmm internet yu seen football TV tey nag dañu ñëw wax ci mercato des lions mercato des lions nag dañ koy dooree fële ca Hollande di wax ci doomu Khalilou Fadiga Noah Fadiga doomu Fadiga nag club Bruges la nekk ñoo ko formé waaye saison daaw dañ ko prêté ci benn équipe deuxième division championnat Hollande donte ailier la doon joué ak Bruges bu ñëwee ci équipe bi Hollande bi dañ ko teg comme latéral droit booy bi football fa 24 match dugal benn bi li ni mel équipe bu première division bu nekk championnat Hollande ñu koy wax Heracles ñoo mujjee jënd booy bi mu signé seen équipe ñetti at si ay kàddoom doomu Fadiga bi Noah Fadiga nee na yàkkamti naa commencé ci club bi wane boppam fële si championnat bu mag ba ñoo ngi wax ni doomu Ndar bi Ismaïla Sarr Liverpool ak Manchester United dañ ko bëgg jënd li nu mel taskatu xibaar bu mag moo ko bindee ñu koy wax Daily Mirror Daily Mirror mu ñuy xamal ne Manchester United Sancho bu Dortmund lañu bëgg a jënd waaye équipe bu bi li muy laajte dafa bëri lool waral jamono bi bëgg nañ jël dossier Ismaïla Sarr jéem ko convaincre mu ñëw Manchester United Liverpool itam desul ginnaaw ci dossier bi ñoom itam bëgg nañu jëndee Ismaïla Sarr di leen fàttali ne première défaite bu Liverpool Premier League Watford bu Ismaila Sarr moo gañe woon 3-0 Ismaila Sarr nekk homme di match dugal ñaari but. beneen gaynde bu xamante ne jamono bi bëri na ay équipe yu koy laaj fële ci Europe muy Papis demb Cissé donte 35 ans la am dafa dugal 22 bi nekk jamono bi meilleur buteur Turquie ak 22 bi ba tax ne ay équipe yu mel ni Olympiakos championnat Grèce dañ ko ciblé pour jënd ko ndax boo jëlee compétition yëpp yu mu joué ren gaynde bi mooy football 35 matchs, dugal 26 but ba tax ne équipe bu Ousseynou Ba ak Pape Oudou Cissé ñoo ngi koy bàyyi xel pour jënd ko. El Hadj Arfan Gueye mi nekkoon ancien joueur bu Dakar Sacré-Cœur nekk joueur bu Lille jamono bi ñoo ngi wax ne dafay signé fële ca Belgique Mouscron bon sens gaynde boulen leen di abonné ak di cliquer ci cloche bobu ngeen gis vidéo bu ñew ngén man ko jërëjëf ba Merci de nous avoir suivis. L'actualité footballistique continue sur Foot 221. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu et donnez-nous vos ressentis en commentaire. Sans oublier bien sûr de partager les vidéos au maximum. Salut et à bientôt sur Sainte Foot TV.